après kay lañu lay doog a mere. jàpp ma ne ñii gis nga bu ñu tegee seen tànk gars fii mooy dernier souffle pour ñoom opposition bi te nag dégg naa am na ñoo dañuy xataraay pour am melaanu kiiraay foofu de. ah oui leen leen de. ku ñu soupçonné bu leen ko watal. après dinañ ñëw ci membre yi petoon yi xam naa après bu professeur ñëwee parce que dafa am lu ma ci war a wax. d' accord mm. allah mm. professeur. Euh, ci ci coalition boobu sàmm sa kàddu googee profil yi nga fi gis boo doon def analyse ak législative yi jëm mais comme élément de base peut-être ci ñi nga xam ne jotoon nañu nekk candidat présidentiel yi ñu génn seen seen i ak la la formation euh, ban analyse lay doon. Hmm, waaw bon man nag je suis un peu <laughs> très nekk maale pour wax ci genre te day nuru genre sabotage quoi. non pas sabotage mais. <laughs> voilà mais bon. parce que les moom ñu ngi fi. ñu commencé oui oui oui bon ils ont le droit quand de se constituer. Ah ci benn ci benn groupe euh, li nga wax rek droit bi ñu am ba def ko moom la droit bi Pastef am ba ni ci bannière am lay demee. ah yaa ngi jàll chaque jour ñu daan ko. mais ñëw ci làmb ji voilà ils sont là ils se sont taxaw nañ bon maintenant li nga wax li Oustaz wax li gën am solo mooy faire tout pour donner une majorité écrasante au gouvernement muy à Pastef ñu am majorité. boo xam ni dina leen permettre li sax dafa am solo gars yi gouvernement la jël mais yoruñu pouvoir ils n'ont pas les leviers pour changer les choses uh-huh. donc cadre institutionnel yi gars dindi changer changer yëpp doxal ko ak yenn affaires yi loolu pour ñu am il leur faut une majorité sur le choix comme loolu nga wax donc ñoom seen seen boobu man bàyyi ma ci xel dinaa leen kii nag di lire parce que man tout ce la vie politique nii daf may bon y en a qui ont de bons profils qui, sont pas mal du tout mais quand même yaa am na ñoo xam tamit li ñuy wax coalition euh, je ne dirais pas euh, euh, fatmer mais peut-être coalition de circonstances ils ont vu que ni voilà situation yi bett nañu et parce que cette situation de dissolution de l'Assemblée et organisation des élections c'était prévisible parce que on avait ah le ouais. choix entre par exemple être raisonnable et être dans le sensationnel gars yi nii ñi demee wax naa la ko sànq fii hmm. une opposition bu dem di la defal ay motion de censure mais kooku il te faut da ngay dissoudre assemblée pour pour pour liggéey ñii il n'allait voter aucune loi de finance la preuve octobre est-ce que vous savez octobre bi ci la def loi de finance rectificative te gars mhm. amuñu woon la majorité mhm, mhm. parce que à six mois du budget d'exécution da ngay def loi de finance pour rectifier yenn affaires pour éviter yenn décalage budgétaire équilibrer waat budget bi et parce que un budget li ñi wax war a wax sànq ñu xam ko budget ñii tant que tant que tant que saboté lañ nekkoon assemblée nationale c' est la vérité saboté lañ neeroon nekkee assemblée nationale boo leen avec seen motion ñoxor njaay parce que la motion de censure est une arme stratégique entre les mains d'un parlementaire mais du fowukaay doo jékki-jékki ñoxor njaay nii ni nii rek nga gëy xëy naan da ngay def motion sans pour liñ leen fi bawoon nii li ñuy def mooy ña weer bu ne équipe gouvernement bu ñëw daaneel ko loolu dans ce cas kan la ñuy liggéey réew ah il gis nañu daje boo xam ne am na ci diggante APR ak benn euh, PDS Karim Wade ak Macky Sall dajawaat politique de mooy jur la ne. <laughs> mais PDS moom quand daanaka mën nañu wax coalition boobu moor la parce que ñu si bëri deltu nañ gannaaw nag gannaaw bu loolu juddoo. Mm. non des dañoo répété rek <laughs> ah noonu laa koy xam nga dafa am ne tamit dafa losigul sax ci nit ki ñëw quoi yaa waroon moytu sax di ñëwaat quoi. Mm. parce que xam nga bu ñu jaawalee ah, bokk noonu ak juboo bokkul de. Mm. bokk noonu. Uh-huh. nga léegi booy bu leen benn booy sonal ci koñ. Mm. koo jot ne mën na ko dóor rek da nga koy andi. Ah, allié ak moom waaw booy bi nappaat koñ koo gis ne mën na la ko dóor rek da nga koy andi même bu nekkoon booy mas na la saaga da nga ko ne dóoral ma ko rek. Mm. mais faut ñu xool tamit yenn yi est ce que mën na dem Karim lan la def fii bii fi ñaangee du nee na ay quelques nit tam nañ ñëw ci Sonko. Mm-hmm. li ko Macky Sall tegaat ban APR la sax à la fin damay laaj ban PDS ak ban APR la encore ah. Mm-hmm. mooy ban. Baadu Abdou Mbow mi nga xam ne lii ko professeur waxee pistolet la yor di ko fooye bi mu tàkk ci loxo. ko fooye bi mu tàkk ci loxoom. an mu tey moom li gars yi naan li APR amee moo leen ci dugal a a y' a l'ex-président de l'Assemblée nationale. non non Maam ah, noon bu muus moo gën xarit bu dof de. Mm-hmm. <laughs> noon bu muus moo gën xarit bu dof de. dafa am yoo xam ne kenn du ko fooye. réew mi fii mooy poumon foofu lay nooyee nga nekk fi naan dama koy jam paaka. c'est très sérieux. mais dañ nangu paaka bi yow damm sa loxo. Ah loolu la woon kon retrouvailles yooyu gis nga yàgg nañu fi ak PDS mooy retrouvé wu. nañu wax ne PDS moo retrouvé la. pas APR ak PDS ah nañu ne waa PDS yi ñoo bëgg a retrouvé waat. ana waaw kan mooy APR fi may nekk. Mm-hmm. keroog gis naa bu ah. ma toog Macky Sall nee na mooy woote. dama toog ñaar professeur dama ne si c'est Macky Sall da ngay ci appel boobu ba xam Macky Sall damay laaj kat damay supposé rek si c'est vrai <laughs> Macky Sall ku leen ku leen yàpp la bàyyi leen fekk seen problème di leen woo distance quoi comme Karim rek toog fële waaye waaye si c'est vrai su nekkul verre nag amul moom moo naa ne moom mbay peex la waroon jox sax micro <laughs> Ba waaw moom la ko loolu rôlam maanaam ak ni waa ji di xatraay ci jottalil Macky yéen yéen ngi am problème boo xam ne mu ngi toll ni moo moo gën a rëy sax màggalu Tuubaa rek léguñu ko yéen ngeen bëgg a toogaat mel ni ñoom xooluñu leen di xaar ci li ñu yoroon askan wi. Mm-hmm. ñu bëgg ñu fàtte loolu quoi pour ñëw ci ñoom. mais nit ñi fàtte xaju fi ah di ngeen di ngeen gis nga kii règlement de compte yi ñuy wax ne moom la gaa def du règlement de mm-hmm. compte de mm-hmm. ku nekk di delloo la nga yoroon ba ñu xam yow a kan balaa ngay regrouper d'abord kon loolu ñu bàyyi ko xel kon su ko defee loolu bu mënee nekk ñoom parce que tudd nit ki su amee defet te bëgg gañewaat mais attention ci ànd yi nga xam ne sincère wul te nag nañ jàngat ci kanam liste yi da nga gis groupe boo xam ne. pour liste yi tegu coolu foofu la nekk xam nga lan mooy suñu sens. investiture gis nga bés bu ñu yóbboo liste yi ci suñ gis nga bu ko rëddee après balaa émission bi jeex naa ci wax dara. ku nangu di nga nangu ku bañ di nga bañ. wax ko bisimilah ñu dem. léegi maanaam Sonko bu xasee rëdd liste yi. Mm-hmm. jébbalu rek. parce que amatuñ jotu nekk fii naan lu tax diw demul du équipe nationale. dañoo da nga topp ay saison bi waroon nga ko classé non affaire bu séeré lañ dem Sonko jël na risque fii yoo xam ne yii ba ñu ko réussir day ne gongo. ah oui te lii moo gën a moyen sax léegi boobu. c'est des décisions difficiles moom kese ak yàlla. Hmm. xanaa ko nga xam ne am na sax. lu ko yàlla présidentiel moom quand même moom wane nañ stratégie. mais kooku waroon nañu wan ah ah bu liste yi ñëwee nag bu kenn nekk fii. Hmm. di fuggaliku naan nangam. am na soxna su baax Mankumba mu ngi états mu ngi fii la Lyon. Hmm. ba ñu tànnee ki ko jiitu ci parti bi. te gën ko am expérience da ko nangul di ko gunge maa ngi koy gërëm Mankumba. macha allah n'est-ce te ñooñu dañu xam Sonko carrément yàgg nañu sonn jël ay risques ngir mais bokk na ci bi may tëjee foofu. Mhm. nga baal ma rek nga baal ma parce que waxuma parce que dafa am ñoo xam ne dañu ma leen xamoon ñuy xeexal projet bi ba pare. Mhm. ma gis leen ñuy affiché xaw ma ndax dañuy ruube wala déet. ñoo bëgg a wax. mais xam nga loolu mooy yàq sa xaalis ci air bi. Mhm. ak ñàkk li laa wóola di ko suba pour ba bëggee ñëwaat. képp ku nekk biir Pastef nga war a arrangé wu ci liste yi nga génn. balaa ngaa ñëwaat ci booy sa confiance dinañ ko ñàkk de. sax ñan a wax. Ah, gis naa ñu bëri xam nga du leen tudd. mais am na ku ma ciy dénk kenn. dama ciy dénk Abdou Karim. xëy na bokkul Pastef mais xam nga lu tax Abdou Karim. xeex la projet bi waaw projet ñoo bokkoon kaso kaso ñoo bokkoon kaso ñu nekk ci débat yu neex sax. Hmm, maa ngi koy dénk li Coran bi wax ci benn ndaw. jigéen joo xam ne dafa doon liggéey ay employé am. ay coton bu ñu paree mu ne yàqaat leen ko toute une journée dañuy sonn quran naan wala takunu kallati nagadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaasan day liggéeyloo employé bee ngoon mu ne yàqaat leen yëpp sonal leen Karim day tabax ba mu maab ba mu pare mu bëgg ko maab ba pour tabaxaat benn yàlla nattoo na ko psychologiquement dama koy jàng Abdou Karim kenn du ko diriger mooy diriger boppam loolu tamit ci nattoom la kenn du ko jiite mhm. noonu la ko yàlla bindee bay boo ñu bàyyi kenn du ko jiite. parce que mooy koo xam ne bu nekkoon ci benn parti wala mouvement islamique dana ju dana xuloog leader bi. tout le temps ci idée yi mu koy bëgg waa ji def ko. ma jàngal ko léeg day attaqué nit ñi naan charia taxawu fi Karim ñun ñu ngi ci laïcité. xam nañu laïcité ak charia ñun dañoo jàng diine xam mouvement islamique yi dund ci. même sax li ñu tuddee fiqul marxala lu nekk ak état bam moom moo dal Omar Diagne nangu woon naa tey ñu ne ma mën na tabax moske ci biir palais. Mhm. ma bañ ku ko gaaranko gàllankoor nangu naa mais comment. Mhm. dafa am fekkul mar xala chaque étape am na lu mu laaj. Mhm. palais mën naa wax ne soxlaagul mosquée. jamono ca kanam la ko soxla. kon du lu ñu war a man maanaam loolu tuddee fekkul mar xala. loo gis dafa am étape. contexte quoi contexte bi. kon Karim xamul contexte. maanaam day jàpp ne li mu bëgg. maanaam tey dal na sax ci sëriñ daara yi ah daara yi a ngi yàqu. daara boo ko jàngee historiquement fa mu tàmbali ci tubaabee wetee nga xam ne dañoo xeexa xeexa xeexa xeex benn ci coono kon bu mu yàkkamte xam nañu diine xam nañu ni instauré diine xam nañ nan ngay fexe yor diine di dund ci biir laïcité mm-hmm. régime yi fi jaar jàngal bu bu bu bu ah, bu comment dire bu Afghanistan jàngal bu Égypte jàngal bu ñoom Hassanul Banna nga jàng ñoom euh, Mouhamad Iqbal nga jàngaleen da ngay xam lan mooy mouvement islam bu nekk ci biir réewu laïcité. Hmm, nan lay fonctionner idée wu l'islam mu ne sa bopp ak nan ngay fonctionner ci biir système mu laïcité. Hmm, Karim loolu la ñàkk. Hmm, macha allah loo wax pour moom mu ne ma mu ne. Quran dugagul pale. <laughs> Quran dugg na pale. jëmm yooyu nga gis joo wax Sonko ñooy xuraan. Mm, xuraan du livre jikko la. xuraan mm, mm, du téere jikko la jub jubal jubanti xuraan la. mais pour moom il faut mu bokk. wala mu nekk ci idéem la ñuy topp mais maa ngi koy ñaan yàlla Karim maa ngi koy dé maanaam nangu woon na jiite Ousmane Sonko mu incarné projet c'est ma wala nekk leader xanaa xamoon ne mag Karim day daan wala mag Karim trahir ma du trahir secret dañ daan waxtaan ci Sonko bu may wan Sonko naka la war a def pour jot nguur gi mm-hmm. macha allah na ko quoi. yéenoon na ko quoi mais damay ay yenn attitude. yaa ngi rapproché les parties rek parce que éléments yi affaire yi a servir réew mi bari na quoi. maa moom suñu débat man Karim a a le droit ko kooku nag la la la def na erreur xam moo ko ko conseillé Ablaye Touré. dafa nee na mooy candidat non non je pense que du dem booy boobu yaakaaruma dem yaakaaruma dem parce que moom ligne bu mu woon xam Sa Ndiogou dafa lu am solo ci benn analyse am man bu ma jaawalee soo nee nga ko Youssou Ndour ba nga nit ñi nawee ci musique mu jàpp ko ne ful boo koy ci biir politique. ñaaralu ko ah loolu mooy bugaan bu mu nekkee ci business ni ñi naan day defar ay inondation mu jàpp ne day toog ci politique du ko ñaareel te nanguwul bàyyi kon nit ñi man mi misaal. mën naa jàpp su ma demee damay jàll. Ah am nga notoriété am oui oui mais du ma ko saa jéem. Ah du ma ko jéem Babacar dafa am loo xam ne logiqueul. Mm-hmm. da ngay xeex benn projet pour lan mu àgg assemblée nationale. Mm-hmm. soo gisee ñu la ko yóbbul gunge leen ñu dem. Mm-hmm. man daal la ma doon wax rek yàlla bu ma nekk demandeur. Mm-hmm. yàlla bu ma nekk demandeur parce que loolu da damay trahir sama conscience. day te Sonko xam lan la bañ nag. Uh-huh. nga jégg ko mu xam ne poste nga soxla. naa leen ko dénk ci Sonko jëmm jooju xam leen ko soo ko jégee mu leer ko ne poste moo la yitteel tàmbali nga am problème ak moom noonu la ko yàlla bindee. na mbir mi nekk sincère. voilà voilà jërëjëf alors euh, Moussa Niang. Mm-hmm. temps daf ñuy xaw a xooj nag. Mm-hmm. juste dama lay interpellé ci ci beneen kon ko muy. législative yi ñu jëm xëy na mm. mais moment boo xam ne ñu ngi installé le pole judiciaire financier mm. mu